على الذي جاء بأحسن الكلام صلي وسلم ولتقبل ذا الكلام من على خير بما يفوق سن من معروف لنازم الخروف خلدني ربا يا من كفى وسى الخرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا يا خيوم يا مكرم يا عجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مساسلا عجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مساس الخلا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مساس الخلا ناجاك عبدك الخديم صلى سلام وسلما على مساسي الخلا شيخ بامبا نونا سنو باي شيخ ابرا فال غوري lu mbaax le la ko jox saadix la moo Seex Bamba noon sunu bay Seex Ibra Faal la lu mbaax le man la ko jox saadix la moo bari gëm yow mi murit ku bëgg mel ne saadix fexeel bëggam Seex Ibra Faal jëfal ko yow mi murit ku bëgg gëm te saadix fexeel bëggam Seex Ibra Faal jëfal ko te bañ di jiixi jaaxaleen ni Bamba Seex ibrafal Faal ibrafal bamba ko wóolu fal ko bamba ne cas juróom jogoo ko jël yoonu tarbiya ko bamba ne cas juróom jogoo ko jël yoonu tarbiya ko boole taxañ root Seex Ibra Faal ku bëgg di yalwaan Seex Bamba gërëm ko faf rijaali naw ko Seex Ibra Faal boole taxañ root buub di yalwaan Seex Bamba gërëm ko faf rijaali naw ko fii Seex Ibra jaar ba xëy di leen takk ba mel nepp jant ko fii Seex Ibra jaar ba xëy di leen rakk ba mel ne jant ñépp ko kum wóor ne Seex Bamba la yàlla jiital war na nangul Seex Ibra Faal jëfal ko kum wóor ne Seex Bamba la yàlla jiital war na nangul Seex Ibra Faal jëfal ko kum wóor ne Seex Bambay borom jinaan jaabiya Seex Ibra la fab jébbal ko kuréere Lamp Faal kuréere Lamp Faal te ne murit laa mooy ku gimiñ jàpp xanaa te njuuy ko bu leen di réere yoonu murit saadix mooy Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal Bamba ko wóolu fal jaaraama شيخ إبراف الباب المريدين ورنا كيب كليب كليب كمان دول بسم الله الرحمن الرحيم فارط إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المسالي ولا ولا قوة إلا بالله إلا بالعزيم جاورت لا بكتابه إلى دخولي الجنة جاورت بالفرخان ربي المهين ملكت نفسي وزازات اللهين جاورت بالفرخان ربي المهين ملكت نفسي وساسات اللين أقصت من دنيا وزاد للجنان وانخاد الهوى ولي صف الجنان وعلاني الأثار في أخرايا وانخاد لي بالانتهاء القرايا نافقني إلى الجنان جيم ولسواي سوزها الرجيم ترسي عن الليل sama dereti bopp gi ak sama njabootu bopp gi jël naa lépp man a Cheikhul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bi mu amee euh, sunu borom it jël tawat teg ko ca njabootam Serigne Modou Moustapha tawat Serigne Fadilou tawat Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tawat. soxna Fadi si sama wii jur wi dem wala man Thierno Ibrahima Fatima dem waaye doomi Sëñ Tuubaa yëgu ci kenn dem bi mu waxee loolu xam nga sëñ bi yëg na tawat ci euh, te jaayante woon bi mu ko yëgee rek wax ne. محمد المصطفى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مول المصطفى من يجي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تاوت جي من نكو ديف موم دال واخ محمد الفاضل بيد الله فالو ني لقي الله محمد الامين بيد القران فليفعل إذا ما شاء محمد الامين آه، القران لا كو باتالي وون لو تاوت جي من نكو ديف موم لول بيما بيسي بارا tawat ji jëlee na ci ak ñàkk dégg dégg gu leer aw làmmiñam it leeru nga boo farloo ba mën koo jàngalit moom mënta dégg dégg bu baax waaye mënta waxit wax ju leer waaye xam loolu lu yéeme waaye daf ñoo daf ñoo leeralal boppam kon ndax sëñ Baara kon bu doon nitu ordinaire rek am xam-xam ak jàng dina jafe ci moom waaye moom nag moo waxal boppam ki ko jàngal te xam ngeen ne gaa yi yi awliya ullahi yi boo gisee borom xam-xam yi di bañ nit di diingat bu fekkee xam-xamam ci law ci wàllu yu rek la yem ak lu sa xam-xam bari bay xam nga li ñu xamul mooy dañuy cité diw da ngay jàngi ci réew yi yi ba ñu bis ñu ne diw borom xam-xam te loo wax ne diwa ko wax yow am nett ci kat nga rek maa xam ne moom fi ne borom xam-xam nga lay jàng na téere jàng na nett li kat nga rek léegi téere ñi nga gëm nag ba ñu convaincre la ñàkk fay da yooyu nga am lu wóor lu dëgër benn waaye jàng naar boo xam ne bu mu doon nga gis lu weex tàll di sëñ Tuubaa ngay nangu loola loolu ak ndox moo tax fi ne koo dégg muy diinga te xam-xamam yëpp ciy téere ak kàcco bala mi sifil lawliyaa dañuy wax ne euh, lawxul mahfuus ñetti téeméeri lawxu la ak juróom-benn fukk te ummul kitaab bokk ci ndax am na ci awliyaa ulaahi ñoo xam ne yàlla leen di jàngalal boppam yàlla léegi gi yàlla jàngal mu jéggi yow mi yem ci benn waaye bu naan jàng nañ nangam nii lañ ko déggee nii la war a demee di andi ay ay ay yëfam nooy noonu moo tax koo xam ne rek ab téere ngay jàng bu diinga dañoo tere nga diinga ndax faaw nga xam loo ko maquus te mun ko mën a góor muy ñaari wet yi awliyaa yàlla yëpp mun ko la ñëpp maanaam wàllu yi li ñuy réy réy maqaama mun ko la ñëpp egguñu ma la sëñ Tuubaa nag jël na mul ko mala ko may ko taalibe ci génn guddi mu sëñ mul ko paxal sultaan mu aarifi la ca gànnaar sëñ Tuubaa du bu ñuy natt naan borom xam-xam yi sëñ Tuubaa jéggi na ci loolu tax del réew mi ngi kenn dañ kenn dañ kii loolu rek ko woon coono yeeg duñ bàyyee duñ ngoo ah, kun fal defe na dana baax mu gën a dëgg rek coono yi loolu rek kon mooy dandale sëñ Tuubaa geeg nattale geeg kooy kooy loogeeg sëñ bi nangam ba ah, xaj yi sax tolloo woon ay prix ak i dimension am na yu jariñ milliard million am na yu jarul ñaar dërëm xarit la du muy jariñ million am yoo xam ne ñaar téeméer la boo ko amee daal da amum xar xamu ko dara yëngu yonent yi wetti ko suñu xol la baax du ma la baax bi ah. dangaa dangaa toll suñu wëddoo ko sëriñ bi joxe ndigal addi ji nag ñu bëgg may suñu mbéyum de wax ki ko may mooy amul. ne ko murid yëpp ñu ngi lay bëgg ndax malade bi feebar suñ ko def vacciné yow yow suñu xaar ñu koy poosé ay bitéel di ko may dara sampal koy bitéel suñ ko sampalee lu ko rey su ko xamoon du ko def seen gàll yaa ngi vacciné murid yi murid yi seen félicité mooy seen tubaab waaw. yéen bitéel yi ko seen bitéel yi ñeenti dinañ gis bitéel la bëgg léegi. laaj ko dara da koy terale ngir jëm si tubaab. te ku bari lu mu daal wax la nga xam ne jaay baara arbaax ak ngëneel sëñ Tuubaa nee na sàll wala jëkk sëñ baara nag moo wax ne hadaytani ya haadiyan allamtani saqaytani kasa safa rabbaytani sëñ baara nee na man yàlla ci boppam moo ma yar jubal ma yàlla ma jàngal kaas yu sell yooyu yàllay nàndal góor yàlla ye man Mouhamadou Lamine Bara maa ko naan daal di wax ne allamtani min ko ilma yaqin al ada wa shakka sëñ baara nee na yàlla jàngal na ma xam ne almu ladunni la mooy xam-xam boobu kenn du ko jàng maanaam nekkul lu nit di jàng ba jaa ni am lam yokku mi ne taallumi ba jaa ni bi kun mooy xam-xam bi sëñ Tuba amee ba wax ne yàlla xamal na ma loo xam ne kenn du ko xam te sëñ Tuba nee na euh, wa aytu uluman nafiatin li lafdi kun bépp xam-xam bu am njëriñ sëñ Tuba nee na maa ko lam boo man Ahmadou Bamba sëñ Baara na nee na may yàlla ma jàngal yàlla moo ma yar ci boppam kon gis nga ne xam-xamam day daal di jéggi ñeneen moo tax mu boole woon xam-xamu baatin moom sëñ Baara ak xam-xamu Zahir yoonu muy ginnaaw Cheikhul Khadim Cheikh Mamadou Lamine Baara moo ci ëpp lu bind nga xam li bind ci ay taalif nga xam ne téere yoo xam ni mu bëree te ay mbindam sax dafa jaxasoo ci biir mbind sëñ Touba ndax dañoo bokk uslub bu ñuy bindee nga xam ne sëñ Mamadou Lamine Baara dafa bari luñ bind bind li muy gàtt gàtt aw fan ndax ñeent fukki at ak juróom la dundoo la juróom-benn bu dee 91 day dund juróom-benn bu dee 90 day dund juróom-benn bu dee 91 day dund euh, ak juróom muy ñeent fukki at ak juróom gis nga ni mu gàtt ci zaay waaye li muy gàtt gàtt li mu bind ci xasida nga xam ne mu nawirul buriyaar bii rek ni mu siiwee bu ko bindoon doy na ah nga xam ne ni mu mel li mu ci jàngale mooy liy leeral xol la ca nekk nga xam ne boo ko mokkalee mun ki la nekk doo laaj dara ci bàmmeel ولطيف الفؤاد wala yarama naan al mu'in bushra ki yaa ardi Touba safinatul aman ay xasaayid yu bëri yoo xam ne gis nga bushra ki yaa ardi Touba xasida bu neex la boo xam ne mooy bise bi ñu bise Touba da ci ndokkeel suufu Touba di ko wax ne yow kawe nga suuf yëpp bis ni ki tey ndax ki ne ci sa biir di si am lu ba kon maa ngi lay ndokkeel maanaam suuf yëpp léegi yaa ko gën yaa leen gën waaye xam-xam bu bëri boobu ko yàlla jagleel it moom sëñ Baara moom cër yu rëy dina gis ne buy bind ni sëñ bi bind ni lay bindee dafa wax ne Euh, yàlla jox na ma jox naa sama lépp yàlla te du doog mukk jébbal yàlla sama lépp waaye jébbal sama bopp it Cheikhul Khadim gis nga lii nii wax kennal sëñ Touba moom dafa bind luy jàngale ne sëñ Touba amul morom moom da ko bind Cheikh moom dañuy baal ba mu ne aslamtu kulli lil baaqi bila nafadi mustasliman lil qadimi mahbatil xidam daf moo jàngal ne. جلنا سما لب جو يالا جيب سما بوب سن توا دان سن توا رسال القديم لب ما مثله احد من زاره عن حق الله او زاره سن بارا ني سن توا موي كو خامني كو ملني مو مسلم ما مثله احد كون غيس كو بوبا بي مي خيول بو نيك كانال سن توا جا ني لي بوغ فاتي كانال يالا لي نون جيجي نيو خامني ايمان اسلام احسان نون نيا لا احسان ñun dañoo jéggi xam nga nit ku xotti ba ñaw lu ba noppi dërëm ni ba sow nga naan ko nañ womb kii romb nañ ci gëm ñun dañoo weesu gëm maanaam gëm yàlla lu tax a topp sëñ Tuubaa fii nii jàng la romb nañ dañ dem ca chrétien yi wax leen lan mooy gëm yàlla moom weesu noonu gëm dañoo gëm yàlla gëm Rasulullah dañoo toll ci pratique yi nangul yàlla tax nu nangul sëñ Tuubaa mooy loolu jéggi nañ fii ne nekk moo tun suñ ci Sëñ Tuubaa gii kenn mënuñu ko tee def ndax lolu bu dul woon ci ma ñu def ko di zahir ma rek Sëñ Tuubaa ni mel kenn melu ni kon loolu matricule auto yi sax ko bokkul lu ci nekk benn dafa particulier yu lolu lu ñuy dégg seen xalaat yi xamna lu bokku ben fa mu am lu jiitu loolu sëñ Tuubaa moo jiitu sëñ Tuubaa mooy paix sëñ Tuubaa mooy miir sëñ Tuubaa mooy mooy ki nga xam ne mooy acteur principal bu l'islam boo gisee muito mënu koo rey mooy acteur acteur bi suyee film du dee des na ko jàmm des na ko fetal des na ko te nga rayal mooy kenn nga bal kooku mooy acteur principal bu l'islam keneen ku dul moom doo acteur kooku moo suyee benn liggéey boo xam ne dafa rafet wano pila nekk champion ko nekk mieux di chako fadi moo tax sëñ baara ne maa mislahu ahadi nee na ku mel ni mu un daal di man saaru anhu hatta laaw zaara sëñ baara nee na ku siyaare sëñ tuba amutoo bakkaar man زاره وقت الله أو زاره فسيجوا وقتك فكل من خدمني أو زاره فنجه وقتي له أو زاره كيف تكون زيارة بام لقيل ما تكونت بكار سيبارة نكوسي على سيجوا تكون بكار ذلك ترى نساك الإمام الذي ما خاف سائله فسائل سيقه وفوق ما سأل سن بارنا سن تبا موي كل تسيانا دان الله جوخت في من بني نيوي غيس لو بارو سن بار نينا سن تبا دوكو لاج بن جام بن سن بار نينا بوكو لاجي بن ام جمي ساك الإمام الذي ما خاف سائله نينا كين دو روتي تبا دي دير سن نابو نيم سأل ساك الإمام الذي ما خاف فسائل سيقه ku laaj sëñ Tuubaa yow yi foo commencé ala da nga am lu kawe li nga doon jot di ko bëgg te sëñ Tuubaa waxoon ma jëmb si la ca njaareem ko ma jëmb si ko Mbàkke mu ne kenn ku ma yaakaar bu tas ndax yow ma yaa am trak bar bu jaam ñëpp dajee man Ahmadu képp maa sañ lii yàlla teew rasulaay teew jaam ñi ma la ñoo na ko yàlla loo digle mas naa ko def ku dul man sañoo ko yomal xiyam kon lu tas yaakaar yi kenn ko yaakaar moo tax boo yaakaaree sëñ Tuba sëñ bi waxaan na ak na ma ni rab yi bi am na kul zaman raafaqani laa budda an yaqal aman murit day dëgër sëñ Tuba nee na ku ma yaakaar doo jàq doo tii doo murit day dëgër nit ku lijjanti ko ku ku lijjanti ko bokkul sëñ Fallu nee na sëñ Tuba daf daan ko nikk na ko nankutum na ko katiw na ko tarawlis man waxuma ñii di wax ay junil mënuma retourné ma barke borom Touba jumaay Touba bu Jibril yoroon micro bi di wax lu dul sëñ Touba. waaw du ma convaincre. waxuma la nag ku jàngee ba ñëw te bëgguma di yow. waaw waaw maa la ëpp lépp du ma la nit. ku ma xabtal ci sëñ Touba daal moo ànd ku ma woo feneen ma laal. sëñ baaraan wax ne kooku du tas yaakaar kon nag boo bëggee naan wóoru teg li ngeen jàpp ak na ngeen naan dañu yox yoxiloo loolu laan ki rek nan kum tatiyu tarawlis tarawlis soxna may mun a confirmé ko na fa man tamassaka bi cheikhina bi la chakki mu la tëddatu bi naana wax la soxna may ne ku jàpp sëñ Tuubaa te dégg dégg moo doo laal

يعني تسميتنا الذكي فإنه وارث أحمد الذكي سبحان ما ينام بولي ليس تبادل نور ما يكبر نور سلالة لو بيش كيان مولي كلي سن باردان يجي جانا جدا لخن سن توا موي كنا خامنئي آه، مجل المريدي نجال المريدي من كيد المري نحن كنت سيطان مولو المدارة نحن موي شيخ الحديد ورسن بار وخن دور وخن البقوم موسيقى محمد الله من بار بما خي سن توا فيم طول وحي الله وخرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجب أن تبان للقلب ما من الله من شرف من يأتنا يهو أن أرى نصرانا لأن بني في يب غاية يالله خمنا جمع دون محمد لمن بار كن يوفي من دنا البيل ياري أنا موتي يالله دنا فيصل دوي البوتي يالله دنا لير ومن يكون مريدا من ترى مدينة كفا أورف العنا وعارة ونار تكون رأس مبتالي بن محمد لمن بار يالله فيرا لنيار دعام دكتور دم سوا تلارو دفعن دفعن بتاعك بكو كوفي lettre boo xam ne si Abdou Aziz mii di maam yi kii toog la ko soxna Fatou di doxoon sëñ Touba ko bindoon fa alam sa tanaalu maqaaman yaxmi fi jami am zalik wa anna lazina jami maaka laa yarawna fi dunya illa ma yasuruhum wa yanfahum wa annahum yadxuluna jannata bi xayri hisabin sëñ Touba wax Mouhamadou Lamine da nga am maqaam mu ne ñëpp di ñee mboolem ku ànd ak yow du gis neex te bu ñuy tàbbi àjjana kenn du leen laaj dara lu sikki sàkkaane ma ko لولا كان الشهادة ده بوقا مسين بار بكم دم نسين بار وانا ومن يكن مريدا من تلاميذنا كفى رب العالمين ما عار ودا كودون سمو تالي بم محمد بن بار دو دم سوارا دو am gàcc gis nga loolu kon sañ-sañ bi am moo tax sëñ Moussa ko wax ni xawaari xemu làmboo sewal na docteur lu waay wat mu tuf ne nga wér ba def buur borom baati na koy xam la jël na diiwaan borom baati la koy xam ku am connexion te yàlla yaay xam kan mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye bu kenn brasse déglu mënuloo ko xam nga wax dëgg yàlla kenn brasse déglu xam dara da def kott rek Cheikh Ibrahima Fall Babu Mourideen mi nga xam ne mooy islam bi nga xam ne fii la jaayante woon Cheikh Mamadou Lamine Bara moom nga xam ne wane na ci melo ku sant Serigne Touba war ngaa sant Cheikh Ibrahima Fall bis def asakay baati mu Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall xalas faatixa laa la bëgg a way ba mu jeex ngir alquran lépp mooy faatixa mooy Ibra Fall mu di ni bon ma sàq doo bi ne mooy bëgg wax lu kenn mës a wax te kenn dootu ko wax Ibra Fall Cheikh Ibra Fall damay murit bu ko sopp rek waaye du xam Cheikh Ibra Fall kenn du ko xam bu ko xam day doon ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall leeram nga jaamu na pour téeméer ñu ni am te kenn tànn dafa aal. Cheikh Ibra Fall li mu doon bi nii fu ko wax bur yàlla rek ko xam. jërëjëf jërëjëf wallaahu yaxluqu maa laa sunu maam Ibra Fall. at li ci turu góor ñi roote leeru Serigne Touba bi doon Rasulullah Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall rootal na góor ña fi newoon duy seeni ndab ba ñu fees mu yal leen ñu ne mos a fekk mel ni baagaari seen bamba lam gaay lamb ci Ibra Faal seen Ibra Faal la ñuy xam mbiram pour yàlla moo xarale wallaaw yëf xarumaaye saaw seen Ibra Faal lab daal ya ak xutbu ya ak xuus yéen woon jamono xaalis ya seen bu dee dàmpe lañ ko jox Ibra Faal seen Ibra Faal xëy nga du gudd yërmaan di xéwal abadan yàlla la bokk saay xaas seen Ibra Faal añaan dafay lakk xool kuréel du mooy sawara seen bamba lépp lu baax jox na ko seen Ibra Faal looy wut ci yàlla ak yoneen ak alxuraan génn ko Cheikh Bamba tàkk na kaw say jox ko Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ku sopp Cheikh Ibra Fall def nañ ñu màggal daa bay maam Cheikh Ndiaye. fii la Cheikh Ibrahima Fall euh, jébbuloo woon. te Cheikh Ibrahima dafa ñemee responsabilité xam nga Cheikh Ibrahima rek dafa doy ci jàngat booy jàng sëñ Tuubaa dëgg nga jàng Cheikh Ibrahima Fall xam nga loolu mooy kat bi wax naan. ni mu ko waxee léegi ci xasidaam boobu mu tëgg ci wolof yi wax ne eh, basmala laam nga ca kaw tiim baa nga kenn tamu ko laam ngaa di seex baa ngaa di seex laam ngay lamb ci Ibra Faal xam nga kiy jàng bismillahi a rahim laam ngi jiitu baa ngi du ko jàngale day ñëw rek bismillahi rahmaani ni ko laam di umbe la ko seex dafar umbe même kañ jàngal wu ko même fuuri jàngal wu ko dañu ñëw rek ba si miim ba boo tax ñu la ba léegi nag baa gi moom yomb naa xam ndax baa gi sëñ Tuubaa moo tax mu ne bas ma la laam nga ca kaw diim baa nga kenn xamu ko baa ngaa di Cheikh Bamba laam ngay lam cay Ibra Fall kenn xamu ko Cheikh Ibra Fall lañ ne te gis kon sañ-sañ boobu sëñ Mouhamadou Lamine Bara am ndeysaan waa Louga jërëjëf jëf mu jaayante fii nga xam ne bi muy jaayante ci sëñ Tuubaa booba كم نفع واحدة ما تسجوها يلا إذا قال ربك أسلم كنت مرتحلا إلى القديم بلا كبر ولا نظر يلا أنا قد ما تسجوها جاية الموسيقى بن جوب قدمته عابدا لله جل وعلا فالمقتدي بك لم يلام في سخط من عبادة مو خدمة خدمة مع عبادة جامو يا الله سنجوا جامو يا الله شيخ رسال مو يلقي سنجوا سنجوا أنا مفهوم أعبده بخدمتي لما جامو يا الله تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شراسيو يلي مخنا لكن كملي bu nee ku ko def lu muy tere inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar ngay julli di fen julli di jëw julli iñaan julli nangam nangam nangam nangam kon yow li julli tax waroo ko am permis passé ko ndax respecté woo code de la route léegi nag ki réglé code de la route Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne tëlu jëw wala dikku la akbar mu bàyyi lu bon di tudd yàlla di liggéey di joxe nu nga kooku gën di raam nga xam ne gisub sikkus kenn moo jàpp leen mu sikk kii kay jéggi na état bi parce que ku am nisaab lu mu yor joxe moom du am nisaab parce que moom du ko Cheikh Ibrahima Fall denc dara ki denc million de mooy joxe juróomi junni asaka ci at mi moom dencul million lu am jox Sëñ Tuubaa asaka waru ko kutiba alaykum siyaam kamaa kutiba ala lladiina min qablikum la'allakum tattaquun day koor effet yi muy def ci mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy lan dam la digal nga def ko lam la tere nga bàyyi Cheikh Ibrahima la yàlla digle ca la nekk lu tax la yàlla digle ca la nekk mooy borom bi subhaanahu wa taala moo ne wattabi sabila man anaaba ilayya xam nga kon ne اتقوا الله واتقوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله قال ابن وابن الاعمال الصالحات ما الوسيله اسم قال ابن من رحمه لان قال جلي ورن قال ابن واتق السبيل من انا اليه كي تطب سمو يون دخ جنس كي من تطبو الشيخ ابن فال جوج جل بابام جاي في الشيخ ابن بابام خالي مشو ام فرنسي بوب دك بوي مو جاي تون سين توبا جوخ سين بارن ديغل بابا دا سانوس مو نيو في لوم وا ادينا لي من السنوس بانتقال إلى مدينة لها مكة يقال سن بارا مو غنا نيه غاي اي رب كون نيه ديك نيم ديك تندي ادنا لي ام رب سن بي دوخ من ديك ما جوغي سنوس دم دي دكم بني يوم مكة كاجور من ادي لي من السنوس بانتقال إلى مدينة لها مكة يقال بارا سن بارا يمنا تيجا تي خم خم ام ادنا من ديماشيون بو شامو نول لبيب بار مو نيو في مكة كاجور sëñ Tuubaa jox ko ndigal mu nekk Mbàkke Kajoor mu nekk murid saadiq boo xam ne kenn mënu ko jot ci bëgg sëñ Tuubaa ak wóolu sëñ Tuubaa ak liggéeyal sëñ Tuubaa nga xam ne moom sëñ bi sëñ Tuubaa dëkk am mooy way juróom mu sëñ Mahamadou Ablis mu sëñ Mourou Baara Cheikh Abdou Samad si soñ bi nee na Rasulullahi moo wax sëñ Tuubaa na ko denceelal Mouhamadou Lamine daanaka bokk na ci tawfiixam moo di ko denc ci waa kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne nee na yonent bi ko wax na ko denceelal Mouhamadou Lamine Baara war a jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara cër yi ko yàlla jagleel waaye wóor na si xusa bi kum ñu jagleel ko kum fa yekkum Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xam ne lépp lu mu wax yàlla fekku ci Cheikh Mouhamadou Lamine lépp lu mu wax rek yàlla fekk mu nekkoon ku bari yërmande xam nga nit ñi dañoo jàppoon ne Cheikh Mouhamadou Lamine dafa tar sëñ Fallou lu wax ne sëñ Bara ko lewet na woon sëñ Fallou nee na laa laa yujaarika fil maydaani min ahadin fil xelmi wal juudi aw fi diini wa nasab sëñ Baara sëñ Fallu nee na laf bi jëm ci yàlla góor yàlla yee solo ca kenn jutu ci Mouhamadou Lamine Baara sëñ Fallu nee na ñeent yi sëñ Baara ci raw ñëpp moo gën a lewet ñëpp gën a tabe ñëpp topp ñëpp ak tap ba noppi nag gën leen aw askan Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ndax la sëñ Fallu fii dii ngeen xel mi ma dii bi aw fi juudi wala sabi nee na melo yi kenn mënu ko daana ko sa buntu waye Mouhamadou Lamine Baara sëñ Fallu na ko ñaar ñii fa daan daje man kaana daa raxabin aw kaana daa raxabin am njàqare moo daan ñëw ci yow sëñ Baara wala ku am yitte waaye nag ku ñëw nag am yitte nga fajal ko yitteem waaye ku ñëw nag nekk ci njàqare nga tàggale ko ak njàqare lool kon gis nga Cheikh Mouhamadou Lamine Baara sëñ Fallou mu jàngal kan mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara radiyallaahu taala mu nekkoon tali bi boo xam ne sëñ Modou Moustapha nee na musuma gis mbaxana musuma gis dàll wala cër bi ni muy toll gis nga ni muy jàngale wala teel te léegi loolu moo gën a manqué ak teel bi moo jafe léegi léegi dafa wax ne moom ñi pas-pas ak possible lañ amoon. pexe ak talent. dañuy dóor rek. dóor rek boo gisee gars yi bari sama maam Cheikh Massamba Mbacké radiyallahu taala anhu moom la sëñ Tuubaa waxoon na ko Massamba Mbacké ndawi jamono yii ñëw dañoo mel li ki ma gëm di ma nax jël mbusum peñ mu dara ñëw teg sama kanam. lan leen di fayee boo ñu gerte googu benn doom ñu ne bari na ñuy ñàngal daray barkeeg xéewal ak ay bëti dara yu ñu ko dañuy jékki-jékki ci bàmba ji rek parce que dañuy góor ay pexe rek lañu yor ak i pawam parce que fasaale maa ngi sa ginnaaw jóori dana baax bu ma fàttee gis rek loolu taxul yoon ñu dox man ñu ne pas-pas lañ ak poussière bu dëgër mosunoo xoolal seen Adama Gueye mi nga xam ne moo jëkk jaayante fii bi ko Samba Laobé xaw ma buur kii bi di ñaan loolu nga ko waxoon naa tibb damee Samba bi ñu koy ñaan mu ne ko naa tibb ci suuf si ma jébbale woon ci barket si ma jébbale woon si am ko ñaanal am xoola boobu pas-pas ak gëm gi amoon a dañoo amoon dëggu am a que sëñ Moudou Moustapha dañ koy yónnee ay dàll yu rafet mu ne Mouhamadou Lamine bu doon soli ma jox ko ma jox ko ñu ne waaw dana soli daal mu ne musuma gis ay daal ci baatin li mu yor ci alal li mu am ci taalibe bokkul sëñ Modou Moussa soxna Aminata Lo bokkul moom ak Cheikh Khady sëñ Modou Moussa seere ne musuma gis mbaxanaa musuma gis daal la ne taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ Touba li fi moom ak taalibe moo koy moo koy moo koy moo ci tax a wax naa ne nag ñi bëgg a dagg rang kenn du leen rang léegi ñi bëgg a doon sëriñ moo bàyyi xanaa Cheikh Ibrahima Fall nee na kër Sëñ Tuubaa ñaari cër fa am cërub sang ak cërub njaam ku féetewoo cërub ngàll ba di jaam ku ko nangoo féetewoo ci kër Sëñ Tuubaa doon ab sant fi boo doon nangoo doon murid sadiq kër Sëñ Tuubaa bu sëñ bi daan loolu yaa fiy nekk yow la ñuy siyaare dina jox addiya dina fasaane boo bëggee tàgg rangi nag boo luy jox cati baaraam di ñii ay saga dong nga yem ak ñu lay kontu du daal kooka dafa def sëñ bi morom ak ku ñàkk fay daa ngi nii nga naan gars yi dañ maa eena dañu dégg lu lay déggee li nga xam ne liñ xamul lu xamul di nga am mënuñu laa dégg waaw mënuñu laa dégg xam nga léegi léegi dégg waa ji kat naan dañ ma comprendre dégg ñu ma mënuñu laa dégg mënuñ gis te gi mbaxam ne sukuraas parce que mbàkk jëwrin mbàkk tànk lañ fi xam looloo mën a toog si maam da daan raam dañuy raam. daf ñàkk compl dafa ñàkk am complexe ci Amadou Bamba ku ne fa nga bokk nañ la xam foo ne Mbacke diw mu ne Ndiaye diw ne Diop ñeme fa nga wéeru ku ne fa nga bokk nañ waaye foo nga ne waa guy bi waa guy bi mooy mooy nu lay xamee man waa Darou Khoudoss la waa Kër Sëñ Samba loolu mooy luy sa numéro nga ne Tigo rek la jot daanaka ñu ci bamb ji wut nii lu collectif fenn amatul fenn kenn suñu sëriñ loolu la ñoo ni bruit yi ak coow yi ak kanam kanam gi nga xam ne moom suñu tubaab moo xam ne boo leen fekk di yor connexion te duñ joxe cotisation fasaale kese rek. dingaan na li la jox daa doy daa doy ko sëñ gaan na foofu la bàyyeekoo nag bàyyeekoo de waaw bisimilah. jërëjëf sëñ Xaadim Mbacke Xasaay dama def Mbacke Mbacke. sëñ Modou mu wax ne njabootu sëñ Tuubaa kan moo ci am ñaari way yu yu yu jigéen sëñ Mouhamadou Lamine Bara ndax euh, sëñ Mouhamadou Lamine Bara soxna Aminata Lo bi ñu koy nampal mu toll juróom-benn weer wala juróom-ñett la génn àdduna soxna aw Bousso way juru sëñ Fallu boole ko soxna Mariama Kunta di di di ko nampal nga xam ne moom ñaari ñaari yooyu la boole soxna aw Bousso ak soxna Aminata Lo moo tax sëñ Bara gis nga ba ko sëñ Fallu wax boole na ci aw askan ngir meloo ko yàlla jagleel kon nañu yeesal suñu pas-pas yooyu te fexe ba mucc ci bees yi ak yu réer yi te incarné sëñ Tuubaa ju nekk dëgg ci noonu. sëñ Tuubaa la jox gi li ko waral mooy da koy wax te lim soxla sëñ booy nelaw da ko dund booy sangu xanaa ko booy ne yaram bi moom moo ko yaramu sëñ Tuubaa nga teelu ndànk ci sangu bi jël ci sa temps. booy lekk def. lu mu métti métti nga ne sant sëñ Tuuba. waaw bëgg sa digg am na koo bëgg paas fii ne paas boo xam ne moo ko yóbbu Mbàkke Kajoor moo ko yóbbu Tuuba mais boo dajee woon ak moom fii léegi day fàtte boppam noo fee gànnaaw ba doon waxtaan kër sëñ euh, sëñ Aziz sëñ Abdou Karim mais noo def sant sëñ Tuuba sëñ Tuuba amul morom fàtte ne amul paas. moo bañ doo du ma def def lu sëriñ sarax ma sànni ma si njariñ man nag ci laa maa ngi fi suuf yàlla dogal naa sëñ Massamba sëñ Tuba da ko mos a wax nag sëñ Xaadim ndigal ma ñëw dégg waaw moom ndigal ma ñëw waaw léegi nag sëñ sëñ Massamba sëñ Tuba da ko mos a wax Massamba mu ko mu ko ngeen ci yoon leen seen mu ngeen yonent bi bëgg ñoom ñetteel ba mu ne ko ma sàmm mu ne ko bakki mu ko leen ñuy jàng yàlla sa borom ne bu leen neexee dana def àjjana bu leen naqaree dana léegi nag ah jàng yooyu ma doon jàng bëgg mu sëñ ma sëñ ma sëñ Xaadim Mbàkke mii moom sëñ Cheikh moom Mahamadan moom Cheikh Massamba yëkkatal lu waaye nag day am lu man ma ku ko ku man ñu doxal xasida yi balaa yëkk ci xasida yi surtout sëñ Tuubaa koy jàng ñun ñëpp ñu déggandoo andi jox la jaay de man liñ ma doon jox moom buñ ci fas dara la sama buum daa dëgg waaye yow dañuy fas de ana ki doon laaj jàmm yi seen fas leen ci rek na ñëpp am fu lay fas ci rek adesa Cheikh am tay si jamono si ngàn na بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بلك سيد مسامة صل دواما سلاما واستر خلاما ليه الإرادة ينسى الإفادة هل سهل جفاي هي بعساي هي يا سلوجي